d'agression des libertés de restriction des mhm, libertés mhm. parce que aussi euh, signalu Walfadjri ni ñu ko daggee bee passé mhm. teguñu ko lu dul ci autoritarisme te loolu mooy dictature benn nit bu nekk à l'extérieur ñu yónnee ko ay image mu ni dafa tiit euh, et puis ne lépp à lui moom mi amoon waroon am benn couleur couleur buy délibéré moom mu jël d'autorité une décision suspendre un signal contre tous les textes pendant une une semaine. alors que bu sanction doon am sax ci kaw émission ba la waroon a dal. Mhm. et non ci ci ci ci ci ci de presse bi yëpp. donc loolu dictature la parce que dañ ko def en dehors de toute loi en dehors de tout règlement. Mhm. donc euh, violation euh, euh, liberté de la presse. loolu recul démocratique lay firndeel comme ni ko analyser sànq. Mhm. rawatina nag ñuy jàpp ay journalistes. parce que balaa may dem ci Pape Ndiaye damay rappeler rek Pape Alé Niang moom lañ fi njëkkoon a jàpp métital ko. Euh, Pape Ndiaye euh, jàpp nañ ko ci contexte boo xam ne euh, journalistes yi yàgg ngeen dégg seen revendication pour la dépénalisation mm-hmm. des délits de presse de délits de presse donte man ànduma ci parce que dama jàpp ni tous les citoyens doivent être égaux devant la loi mais journalistes yi dañu jàpp ni dañu war a dépénaliser les délits de presse kon tey la corporation journalistique est interpellée ci principe am boobu mu doon défendre ci dépénalisation des délits de presse parce que ñu ngi euh, judiciariser euh, benn position wu seen partenaire léegi li compliqué euh, ci délit de presse mooy la révélation des sources parce que bu ñu arrêté journaliste on lui demande ses preuves alors que le journaliste est censé protéger ses sources léegi loolu ça crée un conflit avec la justice moo tax ñu bëgg a aar journaliste par rapport à la justice pour ne pas exposer ses preuves pour que opinion bi am accès à l'information mhm. loolu euh, euh, ku am culture démocratique et de liberté moo ko mën a jël en compte mhm. léegi dans ce qu'il a dit euh, tout le monde le pense parce que nee na euh, euh, la plupart des substituts de procureur mhm. dañu plaidé woon pour un non-lieu dans ce dossier là le non-lieu mooy la suite logique bu ñu toppee yoon kese parce que amul benn élément bu mën a motiver une ordonnance te renvoie devant une juridiction de jugement ça il faut le dire de façon claire parce que le certificat de, de médical n'atteste pas de rapport même et encore moins de viol mm-hmm. les témoins amul benn témoin bu chargé Ousmane Sonko du Ndeye du jëkkëram mm. du seconde masseuse bi du capitaine Touré mm-hmm. du le médecin du kenn ku ñu entendre euh, MC euh, audio yi mu est venu euh, l'authentifier ni mm-hmm. sa voix mais qu'elle mentait Euh, Mamour jàlloo ñëpp dégg nañ ko donc mu nekk dans dans dans le complot kon amul parce que euh, euh, chambre criminelle la ñuy wax. Mm-hmm. donc chambre criminelle doo fa yóbbu caaxaan kon tey jii li doon yoon ci dossier boobu mooy non lieu. Mm-hmm. léegi nag nool lieu buñ ko jëlee dañuy jox Ousmane Sonko yet. lu qui a déjà porté plainte à Bassirou Gueye mmh. porté plainte maître El Hadj Diouf mhm. maître Gabi maître Gabi ak mhm. maître euh, Dior mhm. kooku boo ko joxee non-lieu d'abord tu lèves son contrôle judiciaire mu dem bitim réew raatale foofu mokk mu ñëw <laughs> dama ko ba mokk waaw léegi ñi nga xam ñoo nekk ci complot bi euh. yat bi dal seen kaw waaw tu kon ñoom logiquement mënuñu joxe nool lieu mais man li ma gëm mën naa juum nag ah, mooy du ñu mës a jàpp datu jugement hmm. léegi pour sauver la face mhm. dañu renvoyer euh, devant une juridiction de jugement te xam ni ñoom du ñu mës a juger affaire bi léegi comme ça est-ce que waa ji kon dina mën a nekk candidat mais bien sûr on on ne juge pas hmm. il est pas condamné hmm. il est même pas jugé te même bu ñu ko condamné woon am na ñaari voies de recours euh, en en appel et et à la cour suprême donc Euh, euh, même même à la cour de cassation donc léegi loolu. munul munul munul def dara ci ci ci ci ci candidature am. lenn rek la koy gàllankoor mooy mooy le contrôle judiciaire ne pas levé. Mhm. donc euh, loo loolu tënk adversaire la rek mais mais juridiquement il est pas condamné il est même pas jugé. Mhm. donc ñoom du ñu du ñu jàpp c'est pour sauver la face donc loolu la Pape Ndiaye wax ni mhm. moom la substitut yi wax. mais loolu bu ko substitut waxee même bu ko substitut waxul sax. loolu moo yenu maanaa. Mhm. ci dossier bi. Mhm. non lieu moo ci gën a yenu maanaa. Mhm. parce que quand même ñi doon wax dañu am preuve yëpp indiwuñu dara confrontation bi ça n'a rien donné et tous les témoins sont des témoins à décharge et le certificat médical n'atteste même pas d'un rapport et on parle de viol. comploteurs yi ñu enregistré leen Adji Sarr ñoo ni oui c'est vrai c'est authentique mais je disais pas vrai. kon kon kon kon ban matière moo am. ban ban ban naka la juge mën a motiver un renvoi devant une juridiction de jugement parce que tu donnes pas de matière à celui qui doit juger mm-hmm. il doit s'appuyer sur quoi sur rien du tout kooku kuy wax droit mënoo def lu dul ordonnance de non-lieu mm-hmm. et non euh, euh, euh, euh de renvoi léegi nag am na loo xam ni même bu dee dëgg la mm-hmm. prouver ko dafay daal di jafe loolu mooy li dal Pape Ndiaye même bu dee dëgg la Mhm. prouver ko day daal di jafe. Mhm. donc léegi ñoom ils von ils veulent la face parce que tey dégg naa président UMS. Mhm. di déplorer euh, les attaques contre la la magistrature uh-huh. mais pratique yu mel nii mais mooy tax ñuy attaquer la magistrature parce que quand même le procureur euh, bi nekk tey ji euh, cour d'appel naka la mën a chargé ñaari dossier Ousmane Sonko ci affaire privée moom Mame Mbaye Niang ba noppi dem en deuxième instance toog foofu di xaar dossier bi léegi ban confiance la nit ñi di am ci àtte boobu nga xam ni dafa concerner ñaari citoyen procureur ñëw dugal ci ñaari dossier en première instance ba noppi dem yore deuxième instance bi ñu war a. mais finalement affaire bi est-ce que gënul grave sax affaire suite. mais moo a grave. <laughs> ah oui moo gën a grave. parce que loolu. Ah. c'est la main flagrante de l'État dans un dossier privé. Ah. Mame Mbaye Niang dañ ko tuumaal porté na plainte lu ci yoonu procureur. injure publique ana injure publique est-ce que dégg ngeen Ousmane Sonko injure publique loolu ñëpp war nañu ko dégg fan la Ousmane Sonko saaga publiquement est-ce que il en est capable mais léegi loolu dossier boobu ki ko ci dugal dem cour d'appel di xaar dossier bi dami atte boobu kan moo kan moo koy nangu mm-hmm. le verdict est contestable d'avance donc le président de l'union des magistrats na boole yooyu ci ay analyse am ak procureur boobu ci boppam mm. euh, moom moo fi waxoon ni autopsie mënut a am ci affaire Fulbert Sambou te loolu jalgati la. Mhm. foofu il s'est rendu coupable d'entrave à la justice je le dis de façon sans ambages parce que dafa war a def euh, euh, réquisition à personne qualifiée. Mhm. ñu def certificat de genre de mort qui conclut euh, que qu'on ne peut pas déterminer la cause du décès et lui il dit il ajoute dans son communiqué encore moins une autopsie maanaam kenn mënul def autopsie moom ju cëram. jalgati yoon la gàll gàllankoor yoon la mooy entrave à la justice mu ni du ñu mun du ñu def autopsie muy mel ni dans un dossier de viol mhm. nga ni mënuñu def defar certificat médical mhm. kon naka la ñuy àttee viol bi dans un meurtre nga ni mënuñu def euh, euh, dans un meurtre supposé mhm. euh, nga ni mënuñu def autopsie naka la ñuy déterminer la cause du décès surtout que certificat de genre de mort bi nee na mënul déterminer la les causes exactes du décès kon yu mel noonu de jeter le discrédit sur l'institution judiciaire monsieur le président de l'union de magistrats du Sénégal loolu na ko boole aussi ci ay ay ay surtout en en plus maintenant conférence de presse u Bassirou Gueye bi nga xam ne dafa nangu ni am na lu mu yokk ci dossier Sweet Beauty mooy mooy photo yi am na lu mu ci wàññi parce que nee na dafa jàpp ni concerné wul enquête bi donc muy tuuma yoo xam ne dafa teg woon ci kawam mu génn nekkatul procureur mu mu dossier jàmbur moom mu ciy def conférence de presse en quelle qualité en quelle qualité donc yooyu yëpp nag day day day tax euh, euh, ñuy wax ci justice ni ñu koy doxalee. Mm-hmm. parce que du dëgg du yoon gis nañ fi deux poids deux mesures. Mm-hmm. Ahmed Suzanne Camara lu ko neex wax. Mm-hmm. ñoom waa APR lu leen neex wax mais ñun bu ñu nee <laughs> rek yóbbu ñu kaso <laughs> mais loolu. loolu aussi mu ngi ci dëkk bi. nañ ko lijjanti. du du arrestation yu bëri yi Nabokor. waaw y a y a tellement d'arrestations dans ce pays là. Euh, ni sunu xel dafay demaat également ci Amidia. Amidia euh, waaw ni dof ak euh, ñi nga xamante ne mais mais coowal Kopar Express bi moom loolu moom. tu m'as marché sur la langue. <laughs> tu m'as marché sur.